donc mouvement bi def na deux ans. et bi ñu koy créer dañoo ñàkkoon espoir ndax ñun dañoo bokkoon ci nga xam ne ñoo fi faloon ki fi nekk nii. Mhm. amoon kaar ci moom lool sax. ku fi nekk ko. waaw le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. voilà c'est ça waaw ku dégg ministre waaw ñun ñu ngi doon dimbali. 2014. Mhm. Mhm. et mu ñëw gis ñu waxtaan ak ñun waxtaan ak suñu association jamono jooju noonu. Mhm. kii nii toog Ablaye Ablaye Faye. Mhm. moo nekkoon président association bi wax ak ñun. d'accord ñu jàpp ne kii intellectuel la kii espoir la. Mhm. parce que boobu noonu commune bi xawoon na yàlla. ñu jàpp ne bu ñu ko faree nañu résoudre suñu problème yi. économie bi. éducation bi. infrastructure yu doy. waaye nag kooku dafa ñëwoon wax dëgg yàlla tas ndax ñun fu ko foogee woon. Euh, euh, lépp lu ñu bëggoon daal mu defal dimbali ci biir commune bi mu jot a ànd. a ànd waaw mu jot a ànd donc nag ñu ne ñun pourquoi léegi ñu koy xaar. Mhm. ñun ay jeunes ci commune bi am fay titre foncier. Mhm. am jàng bu kawe. Mhm. wala yaakaar nañ ci kenn ñooy comme que mbir mi nag euh, dañ koo jox mënul defar. ñu te ñoo ñëw sos dara. ci la ko fondation des valeurs. ñu gis ne dëgg dafa rafle ci dëkk bi. ah booy wax dëgg dañuy jàppee naa fekk nga. bu mhm. gisee kenn ñemeetul wax dëgg kenn. fa ñay waxee dëgg sax doo fa dem. léegi mhm. ñun pourquoi pas ne defar fondation des parce que réew mu avancé sans defar jikko yi. bëggante bi. Mhm. waxante dëgg. moom moo war moom moo am moom moo war a am te amul. donc nag moo tax ñu créé mouvement bi et am ay objectif boo xam ne mooy dem jëlee fi nekk muy commune bi. jëm ko defar ak suñu commune bi Yoff mais yéen ngeen fit de. 2016 2017 2018. waaw ñaata at ngeen am noonu. Ah, def na ñaari at. def ngeen ñaari at. waaw def na ñaari at mais. dañoo mhm. nekk ay jeunes yu gëm suñu bopp. d'accord bi koy tàmbale la ñu woon ah, ci biir mouvement bi. non mille mille ay membres lañu. ay membres waaw. sans compte ñu nekk ci avant euh, mouvement bi. mille lañu. xam lolu loolu la bi ñuy tàmbali deux lay doon xam nga d'accord ñu commencé deux la ñoon trois di sorti dem di sorti dem ñi dañ ñaan gëm ñi duñu gëm mais bu ñu gisee yéen ci nek yeen ci dox di dox ci fulé dox ci fayda xam nañu dara fekk fooxul suñu bëtt ñi dañu daw fekk suñu and suñu parents di eh. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. porter eh, combat bi d'accord yeen lan ngeen bëgg changer bir Yoff parce que gis nañ ni que da ngeen ñëw rek ngeen attaquer automatiquement mère Yoff waaw mais ñun fi lañ dëkk ci bir commune fi lañ dëkk waaw fi ci commune lañ dëkk ñun développement muy taxaju eh. yàlla dogal na bi ñu jàngee ba fii nii kenn mësuñoo dimbali suñu waajur ñoo ñu fayal ba fii mm-hmm. te ñun dañoo nekk ay julit te gëm na mm-hmm. yàlla rek dul changé am na ñoo xam nag boo toggee naa leen parti au pouvoir la nekk ak yooyu noonu yëpp ñu dañoo gëm ne réew mi mën nga nekk au pouvoir mais moom réew mi nekk au pouvoir taxut moom réew mi ñun nag dañoo jàpp ne fii nañ dëkk mm-hmm. am ku ñu wóolu muy Baye Laye Seydi moom lañu doyloo wax dëgg yàlla Baye Laye Seydi mu PS Seydina li wax lay alayhi wa sallam ah d'accord il faut préciser moom la gëm man waxuma ay ñoom Seydina Issa bu PS wax ma ñooñu ñooñu suñu ëpp ñun ay opposant lañ ñun ñu ne ñoom ne ci opposition bi ma ñoom taxu ñuy wax ñun du ñu am muy muy bàyyi te bu dee ñun li ñuy woote dëgg la yàlla nañu suñu borom jox. te ñun bu ñu ci nekkee ba tey dox ñu leen loo xam ne yu ñàkk fayda la. ok waaw ñun ci dëgg nañuy dox. Mhm. du ñu woo ci dëgg nga ñuy du mhm. mhm. ñu jullit dañoo fa nekk. ñoo xam ne seen loxo mosuñu ko dégg ci dara kenn mosuñu woo woo police. yaakaar nañu ci kenn ay jeunes lañ. ay jeunes pièces ay jeunes lañ waaw <laughs> toll nii nii yenn ressources yi sax du fi nekk mais ngëm-ngëm am solo la gëm mm-hmm. xam li nga bëgg mm-hmm. xam ne yàllaay may suñu borom nañ gën a gëm ndeysaan yéen mouvement bi ci ne naa def lii naa def lii mm-hmm. bu ñu àggee foofu du ko def ñun nag duñ fi nekk sax di tàddal nit ñi naa leen programme bi lii ak lii ak lii déedéet dañ ñaan ne da ngeen jox ngeen lii mooy problème ñu réglé ko waaw noonu la ñuy doxalee. man gis naa fi ay mouvement yoo xam ne dañoo bokkul ci benn parti politique. Mm-hmm. mais dañuy dem ba ci biir dañ ci tel parti politique lañ bokk. Mm-hmm. et que parti politique boobu dafay dem ba utiliser leen. Mm-hmm. ba nax leen pourtant étant jeune mais yéen en tant que des jeunes ngeen a yem ci mouvement pour le moment. nekkagu leen ci benn parti politique. waaw loolu loolu mooy ay mouvement yi nga xam ne ñoom ñoo gëmul dara xamuñu s'en bopp. mais ñun bi ñuy tàmbali. dafa dafa dafa métti te ba tey mi ngi métti. ba tey mi ngi métti ndaxte euh, soo am le pouvoir da ngay day jafe pour nga am dara. Mm. pour nga am dara ci côté ressources yooyu. Mm-hmm. mais dañoo gëm ne gis nga nit ñi nit ñi sax. Mm-hmm. amaana ñoom dañ fiy nekk rek. Mm-hmm. mais suñu borom ay tàbbal nit ñu fan gëm nañ suñu borom. ànd nag ñun. ndax buñ ci tàmbalee ba léegi amuñu tànk ginnaaw tànk kanam la ñu bokk na ci ñi nga a xeex euh, ministre bi mu fi ñëwee di defar tali. bokk nañ si nga xeex di yuuxu ci kaw dem ci émission di ko wax la nga xam ne tey mooy yaakaar bi ñu ci moom mhm. la deful noonu tàkk yu mu doole ba ngeen war yéen ngeen war am fitu dem di ko affronter waaw sax nga di ko mën a suñu borom rek am doole kenn amul doole. mais moom instant bi moo ëpp doole. déedéet ëpp ñu doole. non si déedéet yàlla ay fal. yàlla mais xaalis mooy doole Sénégal léegi. waaw léegi loolu moom moo tax ñu ne refondation des moo tax ñu dañoo ñëw pour defaraat ko koy ñu sa ñun mhm. bu doon xaalis rek lañ bëgg loolu mhm. dañoo am bëgg leneen leneen leneen dem mhm. toppi ko bu yàgg mais ñu dañoo gëm ne ñu lu waaye doon mën nañ koo doon ndax fii nañ juddu fii nañ yaroo fii nañ màggee kenn fayal nañu lenn ñu am suñuy gëm-gëm am suñuy principe nit nag bañuñu ko mais ay adversaire politique lañ te xalaatuñ ci àdduna liggéey ak moom incha allah rabi du ñu mës a liggéey ak moom ok y en tant que Westphal, mhm. non parce que si tu presque beaucoup de mhm. parce que mairie bi ont bi le programme ils cité yéen en tant que des jeunes de Ouest Foire ngeen gis ni que loolu euh, nan ngeen gisee sax euh, loolu noonu nga xamante ne mairie yu mm-hmm. ñëw dañuy beddi ñaari cité yi. waaw comme laa la wax gis nga Ouest Foire bi la Ouest Foire Yoff la boo xoolee 1400 vers mm-hmm. mm-hmm. dëgg dëgg nga xam ne que Ouest biir Yoff la bokk mais gars yi ñoo dem ba tuddee seen tur kii naan Ouest Foire kii naan Nord Foire mais lépp benn la muy Nord Foire muy Ouest Foire muy mhm. APECSY muy Diamalaye yëpp benn la mhm. moment bi ñiy dëkk biir Yoff ñu ëpp foofu foofu ñu dëkk Ouest Foire ñu Ouest Foire as ñëw nañ ñun fii bëriwuñu noonu sax mhm. c'est-à-dire membre yaa ngi fi mais ñi bu bokk ci mouvement bi di ko doxal ñi ci ëpp Yoff nañ dëkk parce ñun ay étudiants nañ ñi nga xam ne dañ jàng nañu am ay xarit yoo xam ne ni ñoo bokkoon classe bu ñu taxawalee li ku ci nekk dañu wuy si jël ko def ko seefu bopp parce que ñun dañoo gëmut ñi wax dëgg yàlla. lu tax nga mooy leen parce que ñoom ñu liggéey man apparemment je crois que euh, nga ni mm-hmm. a défendre. Mm-hmm. Ah, ah, ah, nga ne ko ah nga dimbali parce que def na fi lii parce que def na fi lii parce ngi liggéey. Mm-hmm. ah ñun ay góor nañ mënuñoo liggéey koo xam ne wax dëgg yàlla liggéeyul te boo xam ne am na benn bindkat bu mag bi nga xam ne daloon wax naan l'écrivain doit se salir les mains dans la boue de son temps mhm. ñu ngi retar ko ne ko s'embarquer dans la galère de son temps c'est-à-dire ñun tey fi ñu toll nii war ñoo toll di topp koo xam ne mhm. mi ngi ci mi ngi ci nguur di doxal lu ko neex ñun fii nañ dëkk mu nga nekk ci nguur gi waaye ëppoo doole kenn yàlla am doole da ngeen gis ne que moom euh, ku nekk ci nguur gi muy Diouf Sarr mhm. da ngeen gis ne que liggéeyul yéen loolu ngeen gis moo tax ngeen créé seen mouvement bi waaw dañoo gis ne euh, maanaam kilifa la kilifa la mais Sénégal am na noo xam ne boo ko waxee sax dañ ñaan kii

ndax ku dul suñu borom da ngeen ko jox cër en plus da ngeen ko ragal. Euh, euh, parce que Diouf nañ on se dit la vérité ah. Diouf Sarr amul rival Yoff. Ah. da ngeen ko da ngeen ci muy ah. mhm. nekk ci. di ñaan yàlla. Mhm. suñu kilifa yi nekk Yoff yëpp. Mhm. ñu ñaanal ñu. ndax am nañu mbébét yu a def si Yoff am nii nit yi war nañu mun développer. mais est xam ñi laay wax ñu dëkk bi yëpp amuñu ne nii ñu toll nii képp kuy ndaw rek da nga war a ñëw adhérer ci mouvement bi. parce que ñoo ci nekk. jeunes yi nga xam ne nii dara dara dara dara dérangé parce que ñun ñii yëpp am nañ am nañ ci ñuy jàpp am nañ liggéey tey am na nu mu doon demee mënoon nañ dem topp ci moom mhm. waaw ah Sénégal xam mhm. yi nga xam ne nii mhm. lii daf ñoo sonal ñun dañoo ne tey dañuy lépp lu ñuy dox rek mooy fulla ak fayda ak dëgg bu dee li ñuy ci ne di ci ñëw bokk ñoo xam di ci ñëw bokk am nañ ay émission yu ngand nag mais suuf yi nga ne ñu ngi koy jaay tubaab yi xam ne euh, tey nit ku ñu dénk pour nga defar Mhm. waroo yàq. Mhm. waaw léegi nag loolu am na lépp. Mhm. waaw d'accord da nga gis parce que gis nañu ko Yoff macha allah am na ay infrastructures yu bëri mais jeunesse yu Yoff gisuñu seen bopp yéen est-ce que am ngeen siège. est-ce que am ngeen siège bu ngeen xam ne foofu ngeen di def seen réunion. tey ku leen soxla dina leen fa fekk. siège moom laa la fu mu toll nii bu ñu tàmbalee moment ba tey fii suñu kër yi siège bi am nañ siège boo xam ne ñu koy installé pour mu pare ñu nekk ñu pouvoir amul benn ressource bu amul kenn koo xam ne mi ngi ñëw di jox amul kenn ku nekk suñu ginnaaw

mais est-ce que wax ngeen ko la réalité. réalité mooy. ñun ñu toppaloo toogaloo nee nañ ko moom lañ soxla mu may dégg. maa ne ko sama gémmiñ. <laughs> monsieur le ministre mu ne waaw ma ne ko fa nga la nga yor moom mu sigi xool ma. ok waaw su ma nekkoon foofa ma ne ko waaw. ma ne ko la nga yor loolu laa soxla. Mhm. ñun ñun mhm. euh, ñun dara dérangé ñu. ñun dara dérangé ñu bokkuñu mouvement yi xam ne da leen sonal. lii da nga koy lekk mu jeex ñu dee. sa réew mi nag foofu lañ toll dañoo toll ñëpp gëm nit yi dañuy dee te dañoo gëm ne lépp loo def mhm. sa bopp te yàlla mu ngi seetaan li ñu may lii tey yëpp dëgg la te ci dëgg nañuy dox maa leen koy wax billaahi wallaahi taalaahi mhm. duñu mos a ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr liggéey waaw du ngeen a ànd ak moom mais man lu ma bëgg question bi moo euh, ba mhm. léegi benn politicien mosul ma cee tontu. Diouf Sarr pourquoi amul rival biir Yoff waaw mun amaana gaa yi ko ragal gaa yi xamul seen bopp mais yéen en 2016 ba tey waru ngeen mën a jug. ah un an rek bi ngeen ko defoon waru ngeen même bu ngeen nekkee trois personnes deux personnes waru ngeen ko mën a ou ngeen def ko benn trip boo xamante mais da ngeen ko ragal. lakkal nañ ko da ngeen ko songu. non si dama ne la soxna si xeex sa booy dem daa am nooy dewee ci xeex. mais mais da ngay njëkk a dem tey da ngay njëkk dem ñu dóor la. mais booy ñëwaat da ngay indaale say nga nga ndaay. tey tax ñu def nii. Eh. liggéey bu mu la ci suuf. waaw ah, ma rival yi ngay wax ne mooy ñi xam ne xamuñu seen bopp xam nga am ñu dugg ci politique pour amateur wala dugg ci politique pour siiw mhm. wala dugg ci politique ndax am na tànk ñun mhm. bokkuñ ci ñooñu mhm. parce que tey am na ñoo xam ne tey bëgg nañ ko mais dañ koo ñemewul nguur gi dérangé wuñu ñu nguur gi dérangé wuñu muy moom dérangé wuñu nag ñu ngi fi ñu ngi waaj bu ñu newoon suba élection ñu ko bu ñu newoon suba élection ñu ngeen soxla mairie Yoff moom <laughs> yéen ñemewuloo Diouf Sarr bëgg engagé maire bi loolu tamit nag tamit nag ah. dama wala la ñun amul ku ñuy ragal ci àdduna peut être fa may waxee nga dul léegi. non comprendre amul ku ñuy calculer. mais amul politicien boo xamante ne day taxaw tout le temps ci télé bi di sonal Diouf Sarr amul. moom laa la dama ne la xam nga tey mbir mi neew ci télé di fala fala rek mbir du loolu la. Mm. mbir mooy liggéey bi nga def ak sa askan wax nit dëgg. ngay mhm. tenir un langage de vérité maanaam tim gi di wax leen dëgg nga mhm. loo mën nga wax leen ko loo mën bu leen ko wax waaye dem fee digg ay da ngay mhm. judd da ngay nekk sa biiru yaay am ku la nekk di la taral bu nga judd weer na la daanu sa kaw mu fab mais Sénégal yi gëmuñu ne boobu moo fi ne ba tey ah dañoo jàpp ne nguur gee fi ne déedéet ñu yàlla rek moo fi ne ñun yàlla nañ yaakaar yàlla nañ gëm mhm. moom nañ yaakaar te moom nañ doyloo te insha allah rabbi man man yàlla ok yàlla yàlla bay sa tool waaw mais yéen lu ma bëgg ba tey demul leen ci waaw mooy combat bi ah. kañ la parce que il faut ngeen gaañ bi da ngeen ko soxla yéen waaw ah, <laughs> combat bi ñu ngi ci <laughs> combat bi combat bi indi fii <laughs> il faut accélérer combat bi indi fii combat la indi fii. waaw combat moo ñu fi indi. waaw moom laa la nga wax ñu sa combat fan nga ci tool. waaw moo tax ma ne la. Mhm. combat bi ñu fi indi mhm. bu mhm. ba mënutul tëdd lu tax. Euh, Diouf Sarr mënutul nelaw lu tax. waaw bay xam nañ mu seetal. mais yéen Diouf Sarr euh, euh, doyul ko sax dal ko. waaw waaw loolu loolu loolu yaa koy def mu mu ko bëggee mu ngi koy defee. mais loolu taxul mu baax Mm. defee nen noo bëggee taxul loolu mu baax. mais yéen da ngeen gis ne que lu muy def c'est pas positif. amul lenn lu positif lu ci nekk naxaate la ci ci ci ci ci commune Yoff. ah naxaate la. mais yéen boobu tey ci wàllum santé bi sax nga daw ñun dañ koo xam xam ne ñun nekkuñu koo xam ne euh, dañuy jug ni pour xeex moom xam ne ni ngi xeex moom fu ñuy xeex ak moom lépp nañ xam. daa mel ni da ngeen def parcours am. dañ koo xam ñun ñi ñoo ko gën a jàng. ah, ah. <laughs> te ngeen gën a jàng monsieur le ministre fuuf en tant que ministre. waaw day benn ñun ci nguur gi newuñ yoruñ ci poste bu nganda yoruñu ay millions mais ñoo gën a jàng gaay xam nga hmm. Sénégal da nga nekkoo ci di wax mais mais man gis naa ni que mis gis naa ni que étude bi en ce dafa nekk loo xamante ne genre bout de papier la rek bu tooyee rek yàqu na. waaw di nga yor mille diplômes mais doo liggéey. dafa fekk dip ak nga yor.

local boo xam ne dina fa nekk di dagg jur yu normal mais moom day day génne mécanicien yi day génne borom fas yi. soxna si soo demee fa dëkk bëriwul ay mhm. a a a taxi bi. non war dem lu daa métti. non Farma su ma fa duggee. damay koy dugal bañ nit ñi la. budget boobu noonu kenn gis sa ah tamit nit da daan jug wax. mais gis ngeen ni que parce que moom tout le temps bu toogee danaan jeunesse jox na leen liggéey jeunesse bi jox na leen liggéey est-ce que gis ngeen loolu yëpp. Hmm. ay wax kese la. mais ñi nekk ci système hmm. am nañu jeunesse bi dañoo feebar. boo xoolee ci nouvelles yi ñu fi nekk. Hmm. di ko gis sax jeune boo xam ne. xëy na ñu fayal ko bourse mu yem jàngi raar na de. Ah. am na ñoo xam ne Moussa mooy ne may bourse ñu dem jàngi.

5000 nekk fi t-shirt nekk fi. waaw mais loolu loolu noonu loolu Sénégal yi léegi koo koo jox. Eh. koo jox moom moom la engagé mu jël mais ki ngay sànni yaa xam kan la. mais est ce que xam ngeen politiciens yi tey ñu ci mel ni tey du ma ba ñeen parents sa gëmatuñu mm. politique. Mm. dematuñu voté ji. moo tax ñu boo xoolee suñu tur mouvement doo ñu gis daraay politique mouvement pour la refondation des valeurs. Mm. gis nga jour indépendance bi xam nañu def. Mm-hmm. ay kaar nañu jël gaari fii. Mm-hmm. ne ku ñëw jox la 2500. ñoom ak ndékki.

mais 2500 loolu la ma. waaw moom laa tax man nit ki na dama ne 2500. ku ñëw jox la ko. Mm-hmm. loolu moo dul yoon. da ngay gis tey te tey nit yooyu noonu ni nga gis ah, ah, te ñu nekk ci moom doo ci mm-hmm. kenn koo xam ne nii am na am na yiw. Mm-hmm. am na diine ràññee nañ ko ci koñ bi ràññee nañ ko ci gox bi. ñu jël nit yoo xam ne tey eh, kenn nawloo leen. ñu ngi jël jiital te mel na ba benn ba benn moment dañu naan lii lu mu doon sax. Hmm? ñun moom vraiment ñun dañu ñoo jombal ñun. ah bon waaw ah, ñoom moom vraiment dafa mel ni kon su ma déggee ci sa biir wax Diouf day nax waa Yoff. day nax. waaw dalee nax bu baax. Hmm. waaw wax dëgg yàlla dalee nax. mais yow sa mouvement seen mouvement bi instant bi yan activité la am amagum. jot am na activité yu bëri. mais pour lan activité yi siwul. ah tey dama ne ñu ñëw ñu fi nekk ci télé yi naan def nañu lii def nañu lii. xam nga tey liggéey bi ñuy def yëpp. Hmm. xam nga tey kañ la njëriñ. Hmm. jour jour jour jour bi ñuy saane ci carte yi. ndax ku ci nekk da nga ci gis sa bopp. ba xam tey kii lam ma defal. wala lam ñu defal lam ñu dimbalee. lan la ah mais loolu yomb na de. ah mais noonu la ñu nekk ci siwu leen ñun xamu leen ci biir yoo noo faar pareil ah west euh, faar west faar sax fi ngeen dëkk yéen. ah ah, ah. Euh, ah nu mu tuddati jàmmalaay apex et autres kenn xamu leen foofu. loolu laay bañ xamu ñun man la ne naa membre yi ne ci mouvement bi. west mm-hmm. faar ci gën a néew. mais kon seen membre yi liggéeyul man fii laa dëkk mais liggéeyuñ kon parce que bu ñu liggéeyoon peut-être man jeune bi nga xamante ne damay ut mouvement moo bokk day suqali sama réew donc dinaa ci dugg moom laa leer dama ne mhm. <laughs> ne la yow yaa ko yéex xam non mais dafa yéex dafa yéex mu baax mhm. daa am noo ciy demee mhm. daa am noo ciy demee tey nga noonu nañu defee liggéey ah xale bu ñoo ko jur day jur rek xam. <laughs> yan daal du ma leen di wax tout le temps rek politiciens yi dañoo ragal Diouf Sarr. Hmm. nanguwu leen ko attaque <laughs> te grand bi man xaw ma la la leen def. grand bi du sonal dérangé wu ñu sax ñun ay nangu daara nañ mais ndongo daara yoo mooy ndongo daara du ragal. moom laa rax ñun dara. mais yéen da ngeen ko ragal. non affronté wu leen ko. ah ñun. non non. Ah. mais moom day def lu ko neex ah. waaw moom day taxaw ci dëkk bi wax ak mairie. Mm. dig leen ay 1 million 2 million 3 millions. Ah. chaque jour ngeen gis ko parfois ah. sax ñu ne naxaate la. Mm, mm, mu nan nan yéen ngeen démentir mu ko ci loolu. ay ñi seen kër daara mu ko mu leen dafay defar. waaw ay yooyu ñun non ñu doxuñ ci yooyu. mais moom am na kër yu moom diggee na loolu wala. waaw diggee na ko mos na ko diggee. diggee na ko kay Ah, suñ télé. Ah. suñ télé léegi est mu egg na du ko def xalaatu ko def xanaa élection bi bu desee ay ay ay ay un mois mën na ko def moom noonu lay def. ko ah, noonu. élection yi bu desee un mois je sais que ko voté. moom laa lay dox nag. ah yéen da ngeen gis. moom day dox day tàmbali leen na. ne lii de naa xaar ba élection yi jot ma defar ko ñëw ne woo gars yi ne kaa ne liggéey naa. mais loolu Sénégal Sénégal nag muus nañu loolu amatul loolu amul benn sens. mu saa ñu loolu lañ xam ñun daal ñooñu ñuy ànd ak jeunes yi ana suñu kilifa di dox mhm. yalla ñaan dimbal ci si combat bi te inshallah allah rabi nañ jam ndam di ngeen ci am ndam waaw yeen fan ngeen di xëcc mairie yo mairie yo inshallah allah mairie bi ngeen fa ne est ce bu ngeen ci duggé kon ni ngeen waxé ni est ce du ngeen ko tojaat tabaxar ko sax da mel ni ah, lépp loo gis ci àdduna lepp lo gi ci àdduna dafa laaj defara jangoro mhm. bo ñëwee bala nga fa nga xam la mu doon mhm. ba pare te ñu li problème bi fu doon dañ ko xam est ce am ngeen experience bu ngeen tenir mairie yo experience moy deug deug kese deug rek amu ne ben dama ne expérience yi dëgg. Diouf Sarr chaque jour mu wax fi ay waxam ne. ah loolu xam nga tey la mu. mais nit ñi dañuy jàpp ne dëgg la. la muy wax moom la engagé. mais yow boo waxee damay jàpp ne dëgg la. ah non moom non man dama wax naa la dama la dama ne la. day naxaate. Diouf Sarr day naxaate day naxaate. ah waaw ok léegi. waaw loolu laa loolu rek loolu laa moom day naxaate. yéen jàpp ngeen ni parce que Diouf Sarr tey boo boo duggee ci ci biir yoo boo ne euh, monsieur le maire Diouf Sarr ñëpp dañuy taxaw di la déglu. Hmm? parce que apparemment dafa siw biir Yoff ñëpp ko xam. waaw dina siw mi ngi média bi mi ngi oto yi mi ngi motaar yi mi ngi lépp dina bu gàtt la ndax néew njëkk bu njëkk keneen ko nekkoon. Hmm. waaw koor bu njëkk nit yi nag am na nooy doxal ak ñoom ba am leen boo ci bëggee génn suñu borom mooy soppeeku. te loolu ko daal fi mu toll mais ku fi njëkkoon nekk def ko. bay na waaram xamuñu woon ni sax mairie Yoff na. ma ne. Hmm. bay na waaram nit ñun lu soxla. Mhm. duñu duñu ci ŋàññi kenn. Mhm. def nak ba fo mën. ngir mhm. japp nek dafa naxaate gars yi ko fi. indi ko moom mu kon espoir. mom tamit mi ngi jëm mais dafa mënul parce que limuy doxalé doxalee moom tamit li muy doxalee moo nekk doxalin bu baaxul. da nga gis ni amul expérience. Oh, expérience mom euh, amna ko xana kay nit dina jang paré té te tax mu appliquer la mu jàng. mais bu amul bu mën bu mën ta doxal bu mën ta doxal comme ni ko nit ci bëggé kay ça veut dire amul expérience pour doxal parce que dafa teulé dédé dama ne ci la jang dawi ci bu bëggé don say say mënu ko téré loolu laa lay wax rek loolu mooy maanaam dama la junj rek. Mm. waaw maanaam jàng leen am expérience taxul nga doxal loola. ok mm-hmm. d' accord yéen daal man baal man ma su ma su a wax yëpp yëpp Diouf Sarr daal moom cuune la. ma de respect <laughs> parce que en matière de de respect. te moom bu toogee bu ma koy laaj ci seen ci seen ci seen wàll dama naan ko boo yooyu noonu commencé ñëw ah dama ne ko sax ay booy. mais des jeunes xam na ma. ndax kii laaj dégg nga sama Ah, ma ne ko Mamadou Gueye ma ne ko Mamadou Gueye dama naan ko grand Mamadou Gueye ah, ah. Euh, fan yi gis nañ ne mu ngi lay tàkkale tàkkale yu métti te amoo woon kenn ñemewul la woon tàkkale moom dama ko koy wax carrément te moom dalay tontu te moom ragalul leen tontu déedéet xam nga mbir mi mais yéen da ngeen ragal tontu mbir mi du ragal mais dama leen boo ko laajee dana la wax ndax ñi ma àndal ak man na ragal nañ ko ragaluñ ko non mais moom day taxaw ne ragal ngeen ko ah. ngeen ko da ko tegul leen ko pression buy wane ne moom mi day wàcci rek day wàcci ñun tolluñu jamono joo xam ne dañuy dem dal nit ki li ñu toll mooy dem seeti nit ñi wax ak ñoom te chaque jour laa la wax boobu 23h ñu ngi ci kër nit ñi chaque jour ba 23h. mais bu gisoon tey chaque jour ngeen taxaw ci buntu mairie ak seen kaar. di dugg ci koñu Yoff yi. chaque jour mu leen di gis. ngeen foog ne loolu rek. noo mbir mi du kaar. non non pas mais ngeen taxaw ak seen oto. di di sensibiliser nit yi. dama ne la ñun bu ñuy génn dox. yor nañ ko de dama ne dañuy dox nii ak suñu tànk yi nii dugg ci nit ñi wax ak ñoom politique dañ koy def ni yor mbir mi moom t-shirt ngeen di dox di dox nii ah mhm. comme nu nga ko waxee da ngeen di dox yéen moom kii ngeen oto yi léegi da ngeen di dox yëpp nañuy teg di dox di dox waaw ok di dox ba ñàkk mhm. tàngaay baa ngi ñëw nag préparé leen ay ndox <laughs> inchallah amul problème comprendre ah. ngeen di dox nii le fait que ngeen di romb buntu mais dina am ñu ne ko ah booy mouvement bii de taxaw nañ li léegi lii xam naa la xam ay déjà moom moom moom moom talul mairie bi sax xam nga tey moom <laughs> talul la talul mairie bi na am na. non non attends non. non talu ko talu euh, mu ngi mairie. talu ko talu ko waaw mu ngi mairie bi yaa ko gis mairie bi. Euh, non du gis nag. Ah, mais à chaque fois boo ne ana Diouf Sarr ñu ne la mu ngi ci mairie ba. premier adjoint boo ko wooyee mu ne la mu ngi mairie mu ngi ci bi. soxna si buñ la wax rek gëm de Abdoulaye Diouf Sarr talul mairie bi. ku lan la tal kon ministère am bële urbani maa yooyu eh? ministère de la santé waaw mais ministère bi sooy xool <laughs> am na ñu fa teg ba pare waaw mais moom moo moo ko soxal li parce que ministre kanaa kon tëdd nelaw rek la fa nekkee ak wàllu man xëccoo ma ministère man maa fii laay xëccoog moom yoof waaw fi nga juddoo fi laa juddoo fi nga yaroo fi laa yaroo fi nga màggee te mënoo yow attaqué Diouf Sarr attaqué ko mooy li non non mooy lan mooy nga ak sa mouvement dugg ci biir ñu ngi def chaque deux semaines ngeen def ko jusqu'à hmm. élection yi. chaque deux semaines chaque jour ñu koy def. non du chaque jour bu doon chaque jour egg si ngeen sama koñ. chaque jour ñu koy def. man damay ragal sax yow nga toog. foo dëkk non fa. fan ci noor faa la dëkk. Ah, côté yub yub lañ dëkk. ah yow yow yow yow yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci deuxième tali ah, laa dama ne la foofu noonu. yow premier tali nga dama la dama pour xamal man xam naa xam naa fa nga dëkk. Uh-huh. ba am fa lenn am nañ lu bëri mais nga xamee tey noonu la suba ñëpp na noonu la ba ñëpp xam. d'accord ah mbir du judd rek ñëpp xam bu loolu bu amee sax na nga tiit xam ne léegi nga dee. ah, ah yàlla yàlla du maye noonu. waaw d'accord loolu yëpp mais damay ragal yéen bu ngeen faloo ngeen fàtte sama koñ wala fàtte Ouest Foire wala ngeen fàtte yenn koñ yi. ah moom laa parce que boo ne West Foire rek dañu naan non koñu tubaab bi nga ne noo fa rek foofu moom ay patron am na bi ñii ñu ay moyens nit yi peut loolu nañu jàpp mais man je ne parle pas dans day West Foire Nord Foire yi li ma wax mooy. Mhm. de manière générale ñun yokk mooy tax a jóg. fii nañu dëkk am na ñu dëkk Nord Foire ci mouvement bi am na ñu dëkk Jaamalaay ba biir Yoff la may lii tey. Mhm. xam nañ la mu doon te loolu daan duñ ko bàyyi waaw ñu may li ba tey dëgg la. dëgg moo leen ko may dëgg moo ñu ba tey. parce bi ñuy tàmbalee ba ba fi mu toll nii xam ne tey am na jéego yu nga yoo xam ne def nañ ko ci sant yàlla nag. mais est-ce que dëgg googu du ngeen dem ba ci kanam dëgg googu arrêté ngeen doxal mbirum politique parce que d'habitude ñu ci dañ naan boo bu dee politicien nga rek bu waxee bul xaw a gëm del xaw a kii nii rek xermente wu rek. waaw xam tey ndaw ndaw bu taxee di laaj ci àndul ak kenn xam nga tey mag ñi dañ fi nekk am benn cinquante deux cinquante trois cinquante quatre ans jox leen bu ñeen joxee mhm. foofu noonu ñoom du ñu mën a liggéey nit yi d'habitude seen bopp dañuy mën mhm. a yóbbu commune bi bu mhm. a moo tax moo tax ñu porté combat bi nii mais Diousa yéen magu leen ko da non astafurlah moom magu leen mag. man magee ma 30 ans. moom magee na la. 30 ans kon yow <laughs> yow li jënd nga fi âge Diouf Sarr. ah dama am Diouf man soxna si xale la nag xanaa nag man gis gis gisuma ne gis gisuma boo ne ma xale la. Euh. man bébé man mii di porté combat <laughs> man mii nga ne Abdoulaye Diouf Sarr xale la du xale nag xale ci xale ci porté yi làqi cinquante kii. cinquante ñaata ñun xamuñu âge de. romb na cinquante xoolal ci diggante cinquante ba cinquante cinquante trois cinquante quatre ñun foofu la. yow kon yow ci vingt cinq ans yi ngeen toll. kan ñun waaw xale bu ndaw nañ man mii dina wax man amu am naa loolu sax. ah, ah. xale bu ndaw laa. man ñi ma àndal ñii ay xale yu ndaw nañ. moo tax nag xale bu ndaw amul ku ci am trente ans mouvement bi amul ku ci am trente ans. parce que gis naa mouvement boo xamante ne ñu fa nekkoon moo de trente ans ñoo fa nekkoon. ñun suñu boss ñi ñu fa ne am na ñu mag ñu toog di ñu superviser di ñu dimbale parce que ñun ñu am kilifa ñu lu ñuy dugg dañuy waxtaan ak suñu parents yi waxtaan ak ñun. Mhm. tey kilifa mooy may lii defal lii bu def lii nit ñi la war a doxee nit ñi la war a waxee. Mhm. waaye nag moment bi lu ma ciy ragal. Mhm. du question lu ma ciy ragal sax mais loo xamante ne dama ko gis gisati ko. ñun mouvement yoo xam ne des jeunes moins de 30 ans ñoo ko yor. benn gis naa ci euh, mairie fii ci biir Yoff actuellement. wut damay jaar sax Diouf am na mouvement boo xamante ne nii. ku ñu paree mouvement bi jubóowul ak moom té pourtant ñu bokk même parti. Mm-hmm. la la té mouvement bi instant bi mu ngi bëgg tass à cause de lan à cause de xaalis Diouf Sarr jox na kii ké kee jox na kee. waxal tur keneen ki. non bokk na ko. <laughs> non keneen ki ñoo bokk koy. la la mom waxal tur bi. non damay joxe exemple parce que leerul ma parce que. Ah, non man leerul ma oh, waxal tur bi. non li ma limay dégg la. ah d'accord. <laughs> leerul ma carrément mais je sais que le mouvement bi tass na. Mm-hmm. d'après sama enquête. lu mu dëgg du yàgg. ah lu dëgg du yàgg. da nga jàppoon ne dëgg fa fene ko la waaw lu dëgg rek laa xam du yàgg. am na moom. Mhm. loo tàmbali. na fexe na nga fexe loolu loolu sotti. Mhm, lu baax la. pourtant ñooñu li nga même même parole yi dañ doon wax de dañ naan ah suñu mouvement bi ci politique te pourtant dañoo dem ba pare ne ko politicien. te yow sa doom yi na nga bëgg ñu boo amee doom incha wala moo ko. nekkul ku ci nekk la nga bëgg mu doon loolu lay doon. nekk ak nit ñi ku ci nekk am na jikko booyam. mais mais mais on est di dañoo nekk ci euh, monde boo xamante ne ni ku nekk day day def choix du du suñuy papa yi ñoo ñuy porter mm-hmm. suñu destin. Mm-hmm. suñu destin ñoo ko moomal suñu bopp. Ah, tey dañoo tey toll foo xam tey lépp lay wax dafa des ci bopp doomu aadama yi am na bindkat bi doon wax naan on ne lit un livre on se lit à travers le livre soit pour se découvrir soit pour se contrôler. Mm-hmm. am ko ne ko j'appelle un livre manqué un livre qui laisse intact son lecteur.

waxee nga yaa ngi yaa ngi yaa ngi juum ndax ñu dañu yàlla maa ngi leen sànq mais nga naan yàlla ba bàyyi sa tool du noonu de ñun suñu dëgg nañ ñun si dëgg nañuy dox te même boo ñu ba ñoon suba tay suba gannaaw suba nga ñëw ànd ñun même tey boo ñu bañee suba man ànd ma <laughs> la yow de ñoom laa wax dama ne yow mais de manière générale de manière générale laa la su ma yow wax ma la yow indirectement loolu noonu boo xoolee ci mais est-ce que yéen a dugg ci ci ci ci école yi mhm. parce que c'est très important parfois ngay ngay dugg ci école yi di wax ak jeune yu nekk faux parce que euh, la majeure partie des jeunes léegi yor nañ seen carte d'identité waaw moom la sensibilisation man mi di la wax mhm. damay joxe ay cours de part cours ay cours particuliers gratuitement man ah en français en philosophie dama ay cours yo xam français la <laughs> uh-huh. ñi may waxal ñu may dégg waa Yoff yi Ababacar laay mi jeudi bi laa war a commencé ay cours foofu noonu téléphone nañ ma woo même pas 6 jours. ma ne leen ku ñëw jàng si gratuitement laa lay jàngal. d'accord tu képp ku dëkk ci commune bi. boo ñëwee daan la jàngal matière boo bëgg ñun noonu la koy may. mais est-ce que xam nga tey euh, président Macky Sall 2019 élection yi su ko gagné forcément Diouf loolu moo fi tradition moo fi nekk tradition mooy loo xam ne euh, suñu maam mais yéen loolu voilà bataille bi ngeen war a xeex nag mooy loolu. règle boo gis am na exception boo demee tey ci article di ni en principe après nga ne toutefois c'est-à-dire am na exception. exception ñu dañoo ñëw pour jëlee fi loolu yëpp muy refondation des valeurs tey li bàyyi lay def. sëñ Tuubaa def ko El Hadj Malick loolu lañ bàyyi ñun. mais voilà yow nee nga da ngay ay cours gratuits. Ah. mais cours yooyu noonu pourquoi pas nga jàngal ci booy ñu xam lan mooy seen commune yëpp parce que tey gis naa euh, man mi boo ñëwoon tey ne ma bindal ma histoire Yoff dama ko bind parce que xaw ma ko jàngaluñ ma ko école jàngale histoire Yoff ñoom bu ñu ñëw ci man histoire Yoff dëgg yàlla indiwu leen histoire mooy français philosophie te ku ci pareel

non on n'a pas trahi mais ils nous ont menti ils nous ont pas dit la vérité Moi, dëgg bu ñoo xamante ne ni ñun am ñoo moom la ñu waroon xam. Ah. parce que tey man en tant que jeune. Mhm. bu fekkoon dama ñëw ma ne histoire Yoff laay jàng. Mhm. histoire Sénégal laay jàng en ce moment là du ma toog ci table bon donc à l'âge de 10 ans sax war n'a pare école. Mhm. ba dem uti sama liggéey. waaw am tey yow yaa ngi wax yow si enseignement général quoi c'est-à-dire tey li ñu waroon jàng ci école yi jànguñu ko. moom laa ma ne tradition la li nga xam tey dañ ko fi fekk. waaye loolu mën na bañ a doon dëgg. nga fekk fi dara taxul mu doon dëgg. Mhm. Ah, waaw nit am na ñuy doxee mais loolu la ñuy dox taxul mu doon dëgg. waaw mhm. ah, mën na doon dëgg nag mais taxul tam mu doon dëgg du du du du loo xam du vérité absolue. mais yow est-ce que dem nga faire cette recherche. Euh, ban recherche. mooy recherche bi vérité bi. vérité bi. Mhm. xam nañ vérité bi ci la ñuy dox nii. ban vérité la. vérité absolue mooy vérité boo xam tey moom moo am. vérité boo xam moom la yàlla teg te ci moom la ñu war a dox moo ñu refondation des valeurs. est-ce que yéen attan ngeen Yoff parce que Yoff dafa bëri dugg-dugg. nit yi teewuñu de yàllaay téye de. waaye yàlla boo doxul nu nga war a doxee yow da ngay nangu. bàyyi rek loolu ba doo ci doo mën a téye dara. yoof am na frais yoof am na apex am na euh, yu bëri. Mhm. yoof dafa bëri dugg-dugg. Ah, est-ce que xam nga fu may waxee. dafa dafa dafa ngande. dafa rëy. waaw ko xeeb mais dafa rëy en fait. xeebuñu ko de tax ñoo xam lañu lañu bëgg. mais est-ce que xam ne tey ñu ngi fooy loo xamante ne nii mhm. tey dinañ dem ba ñu regretté ko muy aéroport Léopold Sédar Senghor. waaw suuf boobu est-ce nga tey dinañ dem ba dootuñ ko moom. ah soxna si loolu loolu gee ko def. mais ngoor bi bu ko defee vous en tant que jeune. waaw de Yoff surtout. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngeen war a xeex loolu. waaw dama ne la. Mm-hmm. gee ko def. waaw nguur gee jël changé aéroport. waaw waaye ñun. wax dëgg yàlla. dañuy maanu ci foofu. am na ci position boobu dañuy maanu tey dañoo ñëw ci émission bi. pour wax ci ci ci commune bi Yoff. mais loolu ci commune Yoff la bokk. aéroport les Mosera nga bokk ci commune yow. je suuf yow bokk ci mais li nga boo xam ne. dëgg lu may expliqué kon yéen du ngeen xëccoo ak ak Diouf que Diouf Sarr moo leen. doole bi dama ne la nguur ñun du ñu xëccoo ak nguur dama ne la. waxuma astafurlah dama ne la ñun du ñu xëccoo ne boo xoolee commune yow fu muy jeexee village. te mu noor waxuñu la. duñ ci waxuñu ne dañ ci ragal xoolal leen. Mhm. mais loolu état bee ko def président moo ko def. Mhm. o oh, Abdoulaye Diouf Sarr man. Mhm. Euh, am na kilifa. ñun xeexuñu ak Macky Sall ñu xeexal mooy daanu Abdoulaye Diouf Sarr forcément day daanu. déedéet parce que génn. loolu laay bañ da nga nekk c'est-à-dire bu fekkee ne Macky dafa dafa gagné. Diouf Sarr day gagné forcément loolu du forcément. parce que dégg naa ci ay rumeur. Ah. ñu dafa sàcc élection yi. ban élection. yi passé. nan da ko sàcc législative yi waaw. ah man législative bi man yëngatuma ci woon de. Hmm. waaw man wax dëgg yàlla. Hmm. yëngatuma ci législative man. Hmm. donc la mu sàcc la mu sàcc xaw ma mais jàpp naa ne nii commune bi pare nañ ci moom jeunesse commune bi yëpp ci moom. mën nañ cee pare. mais boo tey yow jeunesse en tant que jeune. boo demul toog waxtaan ak sa yaay añ ak moom. kafa moom reetaan na moom indiwaat ko ci àdduna parce que dañu mën nañu wax ni ko suñu parents yu bëri dañoo réer parce que Diouf Sarr nañ leen instant bi mën nañ jàpp ne Diouf Euh, kii la scientifique la. Mhm. machine lay yor di ko calculer. Mhm. su trouvé résultat am day dem yoram sànni machine bi fële. Mhm. suñu parents yi noonu la leen def. Euh, mën nga mën nga mën nga waxaat question question bi nga wax nii man leerul si man de. Diouf Sarr. Ah. suñu papa yi. Ah. suñu yaay tey parce que sama papa boo demoon tey par exemple di ko wax naa ko juf Sarr def fi dara wala léegi danaa la eh xamoo tous li mu def nii lu mu def laa. Ah, comprendre du ñëpp. non attends damay expliquer. la majeure partie. Mhm. léegi Diouf Sarr scientifique la. Mhm. te scientifique lu muy machine à calculer le gën a soxla ci àdduna mhm. léegi machine boobu noonu imaginer da koy utiliser su ko utiliser. scientifique la

Mhm. lu mu la wax tay mhm. so bu bu xëyee genn ci. Mhm. ah peut-être dafa amnésique. na ah, day faté xam naa waaye ba fàtte yu na dé mais lolu loolu man suma jikko ni faté parce que man mi rek. ah jigéen ci ben télévision. boo ma wooyee dama la war a jëm. Oh. je suis personne. bu dee nit nga. Wah, mais voilà juste personne bu dee wah. nga waaw parce que tey poste ba nga toog nit yi la fa teg yow doo dara saa nit yi mën a doon dara nit yi ñooy fal nit yi ñooy folli nit kase moom def sa bopp dara fii kenn mënul yàlla moom Wah, fi fi tekk dara yéen nit yi nit yi la dimbali waaw d'accord ku fi ku fi tekk dara nit ñi la Wah, mais Diouf Sarr jamono ji mu nekk nii mhm. iya nit ak yàlla yéen Diouf Sarr yow fa waaw mais bu ngeen fi bëggee jëlee Diouf day miit xam nga lu kan moo faroon Senghor nit ñi kan moo for Abdou Diouf. nit ñi ku for Abdoulaye Wade. nit ñi ku for Macky Sall. nit ñi loolu loolu fooli ma kii Diouf Sarr. mais Diouf Sarr lu ma leen di wax rek. base bi mooy Macky Sall. te Diouf Sarr dégg naa ci ay rumeurs ñu ne day demander mairie da de Dakar. mais est-ce que xam ngeen. Hmm. kon ça veut dire Diouf su demee beneen apériste moo fi nekk. Hmm. te bu boobaa yéen du ngeen mën a jël mairie bi. Mhm. ndax dañ fi am doole. ci mhm. Dakar yëpp. Mhm. Macky Sall bu gagné deux mille dix neuf du ngeen mën a jël mairie bi. donc yéen bataille boobu est-ce que xalaat ngeen loolu. yow loolu sa thèse la. yaay sa thèse daal mooy Macky Sall bu gagné deux mille dix neuf voilà kii mooy gagné yow yow loolu yaa jàpp loolu. Ah. wala loolu ngay dégg ci xam nga mais parce que xam nga lu tama ko. Euh, nit yi dañ ne day sàcc élection yi. parce que d'habitude ñuy sàcc élection yi mooy ñu nekk ci pouvoir bi. waaw xam nga tey. fii bu wéetee ku ci nekk boo wéetee yaa xam la nga def. Mhm. ba toog. Mhm. mais gis tey lu war a jeex day jeex lu war a continuer day continuer man njëkk cadre boobu na koy teg. Mhm. mais ñun ñii. Euh, bu bëggee la nit nekk am am nga yéene def la neex lu la soob. ku nga engagement bëgg naa leen bëgg naa lu ñu ñor ñun. du mairie ki fa nekk nii bu dee liggéeyul. nañ jug taxaw ne ko liggéeyul ñun képp kuy liggéey duñ jaxaarloo yow ñun. en parlant ñun ñooñu politique boo xam ne dañuy ñëw pour xeex nit ku fa nekk. Hmm? gis nañ ni ko euh, mooy euh, Khalifa Sall. gis nañ ni ko ñii nee nañ ci injustice lañ ko tëj. Mhm. ñii nee nañ tëj nañ ko ci justice. Mhm. yow lan moo ci say réaction ba nga déggee nouvelle boobu. waaw tout d'abord damay damay damay loolu pare parce que man képp ku nekk fële yéene ma la ko muy Khalifa Sall ak keneen. Mhm. ndax nit na ko ñaar lu nekk sa kaso. dafa am lu ñu wooyee ci àdduna. ci droit boobu. bi ma def principe de réduction des comptes c'est-à-dire tey. képp ku yore ay biens deniers publics. war nañ laa woo benn jour. ne la kaay nan nga yore loolu nag. Euh, principe buy dox la waaw boo xoolee tey bi ñu tàmbali dañu ñëwoon le pouvoir judiciaire mhm. devait être indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif c'est-à-dire tey loolu théorie rek la Montesquieu moo ko wax mais loolu théorie la mais boo xoolee dans la pratique y a une mise de l'exécutif parce que tey tant que président de la République jógeewul ci

jox ben def na sentence ne tëj na Khalifa Sall. Mhm. mais ñun japp nañ ne que justice lu mu doxalee euh, mënoon doxalee neen dul lolu mais da nga parce que euh, man man je dis que ni justice Sénégal dafa xaw a nekk injustice. Mhm. parce que euh, bo xolé Amérique tay mhm. ñom sen président nu mu nu mu toogee sax ça n'empêche que ni ñom ñu ngi doon continuer seen enquête parce que dañ doon ruumandaat ne que président bi dafa dafa dafa sàcc élection yi kon ça veut dire justice boobu am indépendance. tey États-Unis comment lo fa États-Unis comme loolu séparation c'est-à-dire séparation entre pouvoirs. Uh-huh. En France pouvoir judiciaire on parle de l'autorité judiciaire. Uh-huh. c'est-à-dire France euh, beaucoup le système sénégalais. Uh-huh. Euh, au Sénégal on parle de l'unicité des juridictions. France on parle dualité des juridictions. c'est-à-dire au Sénégal. les juges sont compétents de connaître tous les litiges qui sont portés à la connaissance quelle qu'en soit la nature. c'est-à-dire fii ben attaque yi moom mooy atte mën na bu ci

bon xaw ma sax procès bi procès bi ñu ngi doon poursuivre ou pas mu ngi en cours mhm. jusqu'à présent fan la mujjee mhm. Ta mom lu mu wax ragalul ko mhm. mais dama gis ni que mom lu mu wax man d'après ce qu'on a dit ñen ñi nee baxna ñen ñi nee nañu daf rewaande lako waxé. Wa xama tay droit daf ci nek texte la ay texte la Mom mooy l'élément légal c'est-à-dire tey dafa war am texte bo xam ci ni ñuy référé pour di japp nit ñi donc droit dafa dafa dafa def lolu. da tay du té Sénégal ak attekat yi lu ñu mën ci atte mhm. du tee mu nekk état droit mhm. cest à euh, dafay war a nekk ci li nga xam ne mhm. boo koy wax sax daa am na ngay doxale mais wax na bu ñu waxee euphorie la waxee au pare tamit peut-être d'une part mën na wax dëgg d'une part mën na wax dëgg parce que tamit xam na bu baax la may def tamit euh, si saa si amoon ay émotions yi newoon ci moom peut-être mën na génnee tam loo xam ne tamit mën na nekk loo xam ne tamit euh, xol bu jeex moo xam wax ko mais bu dee dëgg rek la yàlla wax xale ba saal ñu ko jàppee injuste la mais yéen en tant que jeune. Mhm. lu tax jóg leen ngeen xeex loolu. waaw xeex bi mooy xam nga tey euh, néew ñu xeex bi yoo xam ne tey réew yu mag yi boo demee par dans le monde doo dem di gis ay booy yu mhm. nit tey am na leneen mën jaar ci ñoom waxtaan ak ñoom sensibiliser leen mhm. fan la réew mi war a dem. ñu xool ba nit ba nga xam ne posture boobu la am ñu mën ko jàppale mu dem parce que ñun suñu moment néew ñu fi pour di contrer ku nekk ñun ku liggéeyul na ñoo ak yow ku nekk ci dëgg mën nañoo liggéey ak yow ñun képp koo xam ne rek taxul ci dëgg mënuñoo liggéey yow. suñ ci dëgg nañuy dox. nan nga gisee parrainage bu bu bu monsieur le euh, monsieur le président de la république Macky Sall. Mhm. bëgg a tëral. Mhm. ñenn ñi di ko xeex. Mhm. ñenn ñi di ko nangu. yow nan nga ko gisee. kan ñun suñu moom ànd ci ñun opposition nañ nekk pare newuñu opposition tamit pour contrer mais ñun ànd ci. d' accord waaw. yéen ci. du tax. ànd ci. da ngeen ci àndul comme ça sans justification. c'est-à-dire

ndax bu demee assemblée. Mhm. parce que boo xoolee moom mooy majorité di assemblée loolu nga bëgg a wax da nga ne cest à kon kon jurul kon ñu koy voté. non da nga ne tey loolu euh? Euh? kon xam nga ne suñu suñu système bi feebar na bu dem ba ñun suñuy suñu suñu bopp. Mhm. jàpp nañu sax bu demee rek ci saa si. dañ koy voté waaw comme projet comme projet Khalifa bi noonu la demee rek ñëpp xam nga kon kon kon kon kon dafa mel ni magistrat yu nekk fa majorité parti bi yëpp ci ci ci Macky Sall dañ nekk. non dama ne la. xam nga tey. procureur magistrat du benn. magistrat dañ koy nommé. waaw yaa ngi dégg. tey président mënuñu wax mënuñu wax. wax mhm. wax wax wax wax ba amoon loolu ndax moom moo nekk président conseil supérieur de la magistrature moo ne ca kaw. loolu laa lay tey rapport bi daanaka Khalifa Sall rapport yooyu noonu président nañ koy jébbal. kon daal tey waaw moom laa tey tey si politique. Mhm. mën na xool xool Samba Kassé. Mhm. ne kii sama xarit la. mu xool ne kii kii lii la kii lii la moom mooy xool ku ci nekk mm-hmm. mais tey àdduna lépp loo gis muy dox rek mm-hmm. yàlla dëgg la bëgg mm-hmm. bu dee li ñu doxalee du dëgg suñu borom danañ ko wan mi ngi fi mi ngi xool lépp bu dee tamit lu xam nañ mais ñun am na suñu position yoo xam ne moom danañ ko wax fu ñu dem incha allah waaw d' accord nga joxe sa mot de la fin rek ak lan ngay wax euh, population Yoff population environ bon Nord Foire Ouest Foire Cité Nouvelle yeeg ñëpp waaw di di leen gërëm. di mhm. gërëm ci émission bi vraiment. Mhm. ça a été plaisir. Mhm. parce que yow tamit vraiment ku yaru nga ku baax la. ak ñi nga àndal ñëpp. waaw di gërëm sama waa mouvement di gërëm kilifa diine yi. di ñaanal xalif yi. fi nekk fii ci Yoff ak xalif yëpp. yàlla bàyyi leen fa ca kanam kanam kanam. Mhm. dooleel leen bu ñu mun ñu taxaw. Mhm. di gërëm suñu waa mouvement yëpp. Mhm. Abdoulaye Faye. Abdoulaye Fall. di gërëm Maguette. di gërëm Libaas. di gërëm Fudos. di gërëm Papi Sall. di gërëm Moussa Sall. di gërëm jigéen ñi ñoom Awa di gërëm ñoom Kimé di gërëm ñëpp. bu lim jóg. waaw waaw di sant sama yaay di leen gërëm di leen vraiment di <laughs> di sant sama yaay tamit vraiment. kuñ kuñ dimbaleel la tamit ci ci ci combat bi parce que tey doon nekk xale ni di politique yombul waaw boo amee yaay bu la dooleel rek mm. waaw bàyyi la ci rek da am dul sant mm-hmm. nga xam ne ku mu jur xam na ñi muy àndal xam mm-hmm. lu ñu ànd ku ñàkk fayda mm-hmm. képp ku nekk ci mouvement bi rek am na looy prôné doo ci gis sax ku téye cigarette di ko tux

mouvement bi nga xamante ne dama bëgg ngeen bàyyi ko xel xam ni que mu ngi ñëw en force et que ñun tamit dinañ fi ñëwaat très prochainement ci seen yeneen activité di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Ndione waaye di jaajëfal tamit Thiaba ah di jaajëfal Sias yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje seen beneen émission Happy Time Show bye bye